dafa jógee ci niveau centrale muy fonds de dotation ak fonds de concours pour ñëw fekk si ci li bi di def mu jàppale ñu ci ñun ni tamit ñu mën a continuer liggéey bi ak ñoom booy xool tey ci fonds de dotation yi ñu ngi am lu mot ci téeméeri million ak juróom benn euh, téeméeri junni ak ñeen fukk ak lu tegal ñu tas ko nag ci wàllu assainissement santé éducation jeunesse def ci ay koppar pour mun a accompagner structure de santé yi accompagner ndaw ñi mais accompagner it njàng mi. loolu bi ñu ko defee euh, nit ñi d'accord nañ ci après it ñu am fanweeri million ak benn ak euh, lu tegal pour def ko ci wàllu investissement. loolu nag xalaat nañ ci defaraat ay classe muy classe parce que dem nañ ci école bu mel ni émetteur am na fa abri provisoire loolu yëpp war nañ ko toppatoo. war a it toppatoo li nga xamante ne mooy structure de santé yi ami jafe-jafe loolu toll ci fanweeri million ak benn bu loolu daal boo ko boolee téeméeri million ak juróom benn junneek lu tegal boo ko tegee fanweeri million ak benn loolu mooy tey li ñu dajale def ko ci askan wi def ko ci waa Fatick def ko it ci structure yi ku ko wax nag fond de dotation di nga wax ceeb beeg dawlin beeg yi ñuy jox nit ñi loolu yëpp fi la nekk kon tey bés bu màgg la woon bés bu am. moom moo koy wax waaye président fédération Sarawali colonel maa ngi koy sant du ko wax parce que tey pour jiite fédération da ngay dem def sa campagne ak sa programme wax nan nga ba def pour li nga xamante ne moom ngay xëccu nga yóbbu ko ci kanam kon état bi lim lay jox daf lay accompagner ba fédération moo wut war a wut ay pexe nu mu amee koppar parce que fédération. bu demee wuti sponsor war na ko mën a am war na moo wut yeneen pexe yu indi xaalis su ko defee li motul mu mën ko laaj état waaye li gën a garaaw ci nit kuy jiite mooy bu jafe-jafe amee nga jël mbaxana ma dem solal ko keneen da nga ko war a sol yow ba pare. tey am nañ lu mat juróom benn fukki fédération fii état bi mooy premier bailleur de fonds mais mënul def lépp ñi ñu ko dénk. ñoo war ñoo nekk nit ñu xareñ ñoo xam war nañu wuti pexe fédération yu bëri ñu ngi wuti pexe te fédération athlétisme ja ñu ngi koy jàppale tey boo xool ndimbal yi nga xamante ne moom moo demoon ci fédération yi nga xamante ne ku ci ne juróomi million pour fonctionnement la ñu jox fédération athlétisme xam coono yi ñuy daj tax na ñu defal leen lu ëpp lool kon dafay andi njàqare dafay andi it lu kan xamul bu ñu ñëwee ba Fatick dégg fi ne organiser nañ fi naan état bi lim leen di jox doyul mais nañ gën a wuti nañ gën a góor góorgóorlu loolu lañu leen demandé parce que nommé wuñu leen dañoo campagne bañ fal leen ku ñu fal nag dafa am loo warloo ñi nga xamante ñoo la fal ak discipline bi nga xamante moom ngay jiite. en tout cas président bi il est toujours en contact avec le ministère muy Sarawali nekk nit ku am fulla nit ku am fayda kuy góorgóorlu te ñun itamit ñu ngi koy jàppale.